man duma def gis leen ma. Ah. man man sama adduna mhm. du ma def gis leen ma. waaw doo def gis leen ma. non duma def gis leen ma. kon jàpp ni ñi fa nekk def dañuy def. gis ah, wax ma ñi fa nekk dañoo def leen ma de. wax ma li ma wax dama ne man laa la man. waaw du ma def ci gis leen ma. d'accord. waaw nii nii bu coow bi amee nii ma dem seeti ji ko. Mhm. damaa dem pour bokk ci coow li. d'accord. te coow li fi mu toll nii damay préféré toog ñaanal ko yàlla. mais est-ce que xawoon nga xalaat loolu parce que bul jàpp ne moment da nga war a jàpp ne moment bi dafa nekk dans le besoin de. ah est-ce que tamit war nga mën a def loolu ci sa bopp parce que moment bi dafa nekk dans le besoin képp koo xam ne war nga ko mën a dimbali rek waroo xool tool pour ma war nga ñëw dimbali ko. waaw xam nga man yoruma lu ma ko jox. man koy ñaanal yàlla. yàlla jëlee ko ci état bi mu nekk ba andil ko wér gu yaram ba andil ko lépp mais man awma lu ma ko jox. Mhm. ma li ma am mooy suma ñaan di ko ñaanal ci barke Cheikhou Tidiane yàlla fëgg boppam. waaw ma pour taal fa sama vidéo. Mhm. ma pour ñu ne Idrissa mi ngi fa. Mhm. ma pour loolu. d'accord man aw dara lu ma ko jox aw ma dara. lu ma ko mhm. jox su ma fa demoon damay gën a yokk feebaram. ok parce que damay dem ñu filmer ma. ñu ne Idi ñëw na. te andi ma fa dara même bu ma fa joxe woon dara. gis leen ma la Sénégalais nañ bàyyi di def ci def def def kii. def gis leen ma. waaw fii ñu bëree ngi fi feebar yaa doo ma mujjee feebar. dëgg la am na ñu ko gën a garaawle feebar fuuf. ñoo xamante ne instant bii nii quatre mille trois mille mille franc moo leen war a faj te kenn faju leen. kenn faju leen. waaw mais sénégalais nag ñoo mën jublandoo ci benn affaire. Mhm. mais yaa doo ku baax la. d'accord xam naa ko koo gisee nga xam ne jigéen la boo xam jigéen bu firi la. Mhm. day kaf foo reetaan. Mhm. mais senegal ki ñu war a wax mu dem fa xam nga kan mooy suñu ministre de culture. d'accord moom moo fa waroon dem. xaw ma dem na fa wala dem mais loolu lu ko war la. Mhm. ndax moom mooy suñu ministre tutelle. waaw loolu moom. ma koy wax bu baax a baax suñu ministre de la culture moom war na jug. Mhm. dem seet yaadoo seet yaro numéro 2 seeti képp kuy artist boo xamante da ngaa feebar. Mhm. ndax feebar tam ñëpp a koy ñëpp lay dal. muy fecc kat beeg muy théâtre kat beeg muy ku deful dara feebar moom feebar la tudd tuddul leneen. d'accord alors fan nga jàpp ni foofu la problème bi nekk exact parce que tamit dañuy gis souvent euh, wala sax lu bëri dafay dal ci yéen artistes yi boo leen feebaree rek dañ leen di ketal boo leen feebaree leen di ketal lan mooy seen problème exact waaw xam nga fii kenn bëggul ku la ketal. dëgg la. Hmm. ko ko ketal. parce hmm. que arxuraanu karim bu yoroon lu ko faj da koy day fajal boppam. Hmm. parce que feebar bi def na ñaari at ba ñetti at. kon yàgg na kon loolu dafa metti dëgg la comprendre moom famem mhm. buñ ko mënoon faj sax jeex na parce que xam naa ne famem jeexal nañ tàkk <laughs> parce que loo xamante ne ordonnance ordonnance sur ordonnance la loolu famille benn famille sax mënu ko yor loolu borom doole sax mënuñu ko mhm. am na feebar fu muy toll dañ ko war a siiwal ku ci mën a def dara def ko ci mhm. peut-être nag artistes yi ñoo siiw moo tax ñu leen di ketal am na ñu bëgg ku leen ketal te kenn ketalu leen am na ñoo xamante ne bëgg nañ ku leen ketal barki alxuraanu man ñaata nit ñoo ma yónnee seen ordonnance par jour ñaata nit ñooy am feebar aloo Idy dañ maa boole ak yow. ma woo sama quelques nit duma ko filme mm-hmm. duma ko def ma dem dimbali kooku ñëw toog. Mm-hmm. dinaa woo sama quelques personnes loo am envoyé ma allo loo am envoyé ma loo ma. Mm-hmm. ñu am loolu envoyé ma ko ma jël ko yóbbu ko ci pet. parce que bëgguma def ay gis leen maak ay nii ak nii ak nii ñi ma mën naa ci lim ñu baree baree bari bari ñoo xamante seen ordonnance mi ngi fii sama téléphone. ku ci am feebar duma la xam sax. allo Idi ñi may déglu xam nañ li may wax samay contact yenn saa yi ñenn dama leen di woo ñu nekk ay kilifa ma yónne leen damaa am malade. yónnee maa ko sañ a def yónnee ma xaalis nga yónnee ma xaalis. waaw problème bii nii naroon naa taal sama live mais ma taal sama live pour ñaan. Mm. Ah, ah. mm. xam nga du ma ko def. Mm. ma taaloon sama live. coow li day gën a metti. dëgg la. su ma doon saal sax xam nga laay def. def ni aw baa def. aw baa barki Seexu Tidiane aw baa ñëpp ko war a remercier. bébé Eva ah. ñëpp ko war a remercier mhm. barki Serigne Babacar Sy bébé Eva maa ko yar mhm. bébé Eva man maa ko jàngal théâtre ndeysaan bébé Eva maa ko jàngal théâtre maa ko wax nan la ñuy théâtre mhm. muy nit ku baax nag d'accord barki Cheikhou Tidiane bébé Eva ku baax la mais sénégalais ñooy bonal nit gi nga sénégalais bu bëggee nga baax. Mhm. force dangay ngay baax. d'accord sénégalais bu bëggee nga bon dangay ngay bon sénégalais moo mel noonu. ak mhm. ñenn ñi ma ko sax na wax. mais dañoo gis ne Awa Ba euh, lu lu baax la si bëggoon ci ni ñu ko gisee ci initiative bi nga xam ne jël na ko dimbali ko ndax yàgg nañoo ànd di liggéey mais sénégalais yi dañoo tourné affaire bi ci moom. waaw loolu laa ko xas. Euh, ko wax loo xamante ni si peut-être. mu def nii bu nekkoon beneen dëkk bébé Eva li mu def nii bu nekkoon beneen dëkk. Mm. ministre bi ministre bu yor wàllu social Sénégal. da mm. koy woo takkal ko médaille mérite. Aobab ñaata million la yow huit millions. huit millions xaw ma ak quarante et quelques mille. quarante deux mille je pense. Aobab boo ubbee compte bancaire am yorul dërëm. dëgg la waaw. xam na comprendre li ma la wax. bu baax xam naa li Aobab mi ngi dimbali nit te moom ci boppam moo gën a sonn ñëpp. dëgg la. moom feebarul tëdd de. mais yor na ay njaboot yor na yaay yor na papa yor na ñu yaakaar ci moom. gis nga Sénégalais dañuy fàtte. dëgg la. aw baa yóbbu na këram xool nga jël yóbbul nit ay millions te yoroo dërëm. yoroo dërëm bi laa. mais wax na dëgg. Mhm. aw baa li mu def ni barki Cheikhou Tidiane Sénégalais yëpp ñoo waroon taxaw ne félicitation. aw baa mhm. ndax ki nga lu am rafet rek bu amul woon ñaaw. Mhm, aw baa tey bu demul taal laay fam lii ñu am ni duñ ko am. aw baa ñu bëri moom moo tax ñu xam ñu xam feebar bi. est-ce que jàppoon ni tamit xam nga ñu bëri dañoo jàpp ni que ñàkk sutura gi moom moo waral lu mel nii. déggoo li ma la wax am na loo xam wone ko. yaadoo bu ñu wanewuloon feebar kenn du ko jël en charge. la. gis nga am na loo xam ne dañ koy wax. Mhm. li ñuy wax li ñuy wax am na feebar yoo xam boo ko waxul du faju dëgg la am na naqar yoo xam boo ko waxul du faju mhm. nit a ngi dee parce que naqar bu munul wax fenn. Mhm. nit a ngi feebar di nëbbu feebaram ba far dee. dëgg la nit ñoo fi am cancer di nëbba cancer bi. ñaata nit ñoo fi am jabet di nëbbu jabet bi ba fay dee. dëgg la. nit ki boo feebaree xool ni yow mënoo faj sa bopp dangay ngay uti ndimbal baatu ndimbal fa la mooy dimbalante. Mhm. bu ñu ba ne dimbalante mooy am na ko amul. parce que yàlla dafa bind te yamalawul d'accord bébé Eva lim def dafa rafet. Mhm. bébé Eva tey barki Cheikhou Tidiane bu nekkoon beneen dëkk. billaahi wallaahi diplôme de mérite lañ koy jox. Mhm. parce que dañ ne dox na ci luy sauver vie. mais Sénégal naqare naa waxe mhm. Sénégal naqare naa jëfe mhm. Sénégal naqare naa am conseil mhm. Sénégal Sénégal nii Sénégal la tudd d'accord mais ñu jàpp ni que dafay maanaam li nga xamante ni jote na ak njànku moom moo waral muy njëkkante à ce que mu dem foofu pour def fa li nga xamante ni moom moo di ndimbali parce que ku ne xam ne ni si nag yaadoo moom ak ak ki xamante ni Amady ñoom ñoo doon joué Awa Ba am na ak problème njànku ñu bëri jàpp nañu li mu am ak problème njànku moom moo tax mu def lu mel noonu noo lool xam nga même problème am moo ñànk du ma ci wax. d'accord ñànk sama nit la aw sama nit la ñànk lu baax laa ko xamal. d'accord bébé lu baax laa ko xamal man ak ñànk ñoo doon ànd guddi ak bëccëg. comprendre ñànk lu baax laa ko xamal mais dama ne. ñànk aw bébé Eva. Mhm. ak ñànk dañoo xuloo loolu mën na tere ña bébé dem seeti dem seeti. parce que dañoo jàpp ne ñànk demu fa moom moo tax mu dem fa genre. nga Sénégal yi ak du loolu. waa yow ak sa caméra bi bu ngeen xuloo woon. Mhm. man ma xam la. Mhm. est-ce que sa caméra bi su ma koy dem dama koy tàggu ne maa ngi lay seeti. non non du ma ko tàggu. Mhm. parce que sama xameel ak yow donte moom moo tax nag ma xam la. du su may dem ci yow dafa maa war dama ko war a tàggu. nañ xamante gis nga nit nañ Sénégalais daal fi muy xalaatee soriwul. waaw. bébé Eva ak Yaadoo ci tur bu ñànku lañ xamante bébé Eva buy dem ci seeti Yaadoo du force da war a tàggu ñànku. dëgg la ñànku bu fay dem du force dafa war a tàggu Yaadoo dafa war a tàggu aw aw baax. comprendre nga. ñoom ñaar ku nekk ak kóllëre bi nga sekk ak nit. man xam naa yaado la ma tax dew ma fa. d'accord parce que aw ma lu ma ko jox. Mhm. li ma mën mooy su ma jullee ñaanal ko. Mhm. ñaan yàlla mu ki awma lu ma ko jox. Mhm. aw ko. mais yor naa sama ñaan bi gën a seer. mais du ma fa dem di puuk réew du ma fa dem di ko wane du ma dem di ko def nii mais billaahi aw ba li mu def nii lu rafet la président de la république laay wax directement. aw ba référence la war a nekk ci xale yëpp. d'accord bu fekkoon ku fi am problème ñu taxawoo ko nii kenn du feebar. Mhm, wala kenn du kenn du demal ci hôpital bi. Mhm. man damay dem seeti nit ci hôpital bi nga gis ñu may daf foofu di ma jox ay ordonnance mhm. léegi sama xarit bu demee bu feebaree man rus naa dem hôpital su ma yoru xaalis du dem damay wóor ne damay yoru xaalis. ma dem hôpital nax bu ma demee hôpital dina am benn mère eh Idi sama doom. ko est-ce que ko gàntu. doo ko gàntu. di nga yëkkati li nga xam jox ko ñaata nit ñoo toog biir hôpital ci biir hôpital bi te yoruñu dërëm ay 4000 ay 5000 ay 20000 ngay gis ay ordonnance metti na de. kon yow yow nga toog nag nga xeeb 20000 yooyu. Mhm. yaa ngi lor doomu mhm. a a mhm. yi. bébé Eva.